waa kër Bougane Gueye Dany yi ñoo jàll ni di xuloo ni ak Anta Babacar Ngom ñoo def seen coalition noonu ànd wër dëkk bi fay ñu war a lekk seen xaalis nii waaw te kenn du leen woteel waaw loolu am na waaw xoola garde corps bi xoola garde corps Bougane Gueye bi mooy xuloo nii loolu am na eh, moytu leen reyante rek te kenn du leen woteel ñooy xuloo ñoom ñii ñoo ngi nii loolu am na waa kër waa kër Bougane Gueye Dany yi ñooy xuloo nii ak waa kër Anta Babacar Ngom ñoom ñooy xuloo nii loolu am na te kenn du leen woteel ñoo ngi ni oto baa ngi nii taxaw nañ xuloo ba doyal ñoo ngi nii di dépaan nii loolu am na dañuy def demi tour loolu am na dañ leen a baare fële ne duñ jàll dañ leen tere fi mu toll nii du leen jàll suñu koñ la ñuy suñu koñ la jaar loolu am na kenn du leen wootee loolu am na ñoo ngi nii ñoo ngi nii ñoo ngi nii ñoo ngi nii nii def demi tour dañ leen a baar tere leen ne leen du ngeen jàll Anta Babacar Ngom Mbougane Gueye Dany loolu am na kenn leen ñoo ngi nii dañ leen a tere xool leen xoolal pose mbaar bi loolu am na moo ngi nii ma leen di jël ordre kenn du leen voteel ñoo ngi nii ñun pro la ñuy topp topp ñu leen loolu am na xool leen xoolal demi bi xool leen ak doomi tuur bi wuy sama ndey waaye yow xoolal li mel ni mbojjum gerte nii ah ëpp na kenn du leen voteel yow xoolal yi benn oto ñu duy ko duy duy ba mu fees nii loolu am na kenn du leen voteel oto bi am na problème nag da xanaa bi ngeen bi ngeen di dépasse sangatu oto bi oto bari na coow de oto bari na coow trop sax boobu ba léegi yéen a ngi coow xam naa ndeysaan day seen ni leen di ñàkk a voté nii moo leen di xeeñ moo tax.